réew mi nag fi ñu toll waruñoo nangu maan ñuy toj di bundu xataa li nga xam mooy institution yi Sénégal fi ñu toll Macky Sall warul mën a jël ay loi yu ko neex di indi si pencu ndaw man jël na engagement ak député yeew yi ak waa wàllu yi li nga xamante ne mooy modification article 87 duñ ko wotee tey duñ ko wote ëllëg ndax jàpp naa ni loolu rythme démocratie la ndax Macky Sall cinq ans lañ ko fal cinq ans jeex na dafay dem député ñu fal leen cinq moom mu bëgg a def calcul politique pour bëgg a tas assemblée à tout moment loolu yaakaar naa ne si réew mu jaar yoon képp koo xamante ni dengan ko da nga trahir sa peuple waaw loolu moo tax que ñun pare nañu pour maanaam lépp loo xam mën nañu ko def pour baare Macky Sall ci route bi nga xa jël na ko dégg naa nag nee na joxe nañ ndigal pour ñu retirer procès bi ndax article 87 bi nga xamoon ne constitution bi daf ko remplacer abrosé ko si article 29. parce que article 29 lim si tëgg mooy à tout moment président la république mën na tas assemblée ak bu ko neexee te comme moom day dem te xam na ni maanaam majorité mënu ko amati moo tax mu bëgg boole lépp.

mais ay waxam gëmuñu ko parce que Macky Sall lu lu mu wax lu nek def nako liñu ñor nak moy xex pour démocratie sax ci réew mi xex pour dëgg sax ci réew mi xeexuñu pour suñu bop mais ñi fi ñew ëlëk dañoo xamni ni liñ xam moom fi amoon ñom ñu mën ko continuer maintenir ko mais à tout moment Macky Sall bu ñu bloqué ensemble wala bu assemblée géeyul wala moom peut-être al bu ko nexé mu tass ensemble lo teggul ci yoon Macky Sall moy kan nek dictateur bo xam lu ko neex mu bëgg def ci réew mi to loolu yaaka naa ne Sénégal yi war ko permettre ku inaana saw doon nak sa deew day ñaaw moom bëgg na dem bëgg yóbbaale ensemble te 87 députés cent député yëpp dañu yore ay bor muy ñu bokk si ñoom ak ñu bokk si ñeneen ñi 40 millions lañ jël si banques yi mais kan moo koy fay après ba pare ñaareel bi maanaam bu fekkente ne tey bu ko neexee tas ko suba suba suba suba ensemble sax lan lay jëriñ kooku da koy teg baat si bopp bi wax naa nag ñi nga xamante mooy Khalifa Sall ak Karim Wade la def très attention parce que Macky Sall dafa jël article maanaam 28 et 29 bëgg leen koo jaay ci modification article 87 ndax dana leen maanaam bu fekkente ni maanaam wotuwu ñaari taxi yene taxi bi nii wotuwu ko su booba man nañoo éliminer noonu yëpp kon li nga xam mom lañ waxon ci dialogue bu amoon ak kii article 28 ak 29 ci code électoral bi d'accord nañ si mais article 87 ci constant bi d'accorduñ ci won point la bo xam ken d'accord si won comme point la bo xam ken d'accord si lan moo tax mu jékki-jékki suuxal ko si sànni ñu ko ci lo xam teggul fenn tay yaakaar naa ne nag réew muy dox mais ken ñu wut a tas assemblée à tout moment parce que France amul ñu manam li nga xam moy majorité li nga xam moy pouvoir bi mais est-ce que maanaam Macron ñi mën naa assemblée kon Macky Sall dafay mel que ni li nga xam moom la Russie am wala Russie di ko def moom la Macky Sall bëgg a def ci réew mi mooy dafa bëgg a teg benn nit boo xamante ni à tout moment mën na dem 2024 kooku ja gagné moom mu ñëw nekk président assemblée nationale ba pare ñëw sensibiliser waatam pendant 6 mois kooku démissionné mu nekk président de la République kooku duñ ko accepté ndax réew mi du réewu dictateur réew du réew ñu donno réew du réew moo xamante dañ ko jox ay làkkat à tout moment pour ñu koy donnante réew mi Sénégal la dañoo respecté suñu loi ak suñuy constitution kon askan yépp xam ni ñoo ngi fi nekk dignement pour la population bi pour taxawal askan bi di xeex lépp man nee naa leen nañu ñàkkandoo lépp moo gën maanaam ñuy wote lii nii bu fekkente ni nag maanaam dem nañ ñoom ban bëgg wote article 29 28 ak 29 ci règlement intérieur bi ngir ñu bëgg koo jënd article 87 man damay lànk ak fu ma man di bokk d'accord ma ci loolu parce que askan wi moo ma gënal nag sama ngor moo ma gënal aussi mais li ñu ñor mooy même xajuloo amu si mais nañu def loo xam ne askan wi ko moom parce que léegi tey jii ñun dañoo jàkkoon si dialogue bi ni nan modifier li nga xam mooy code électoral bi mais d'accord na si mais lan moo si euh, ko loolu ay ay ay affaire yoo xam Macky Sall moo ko dugal ci biir ngir ka bëgg man asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné bu baax a baax a baax ak di like vidéo yi like yi yenn saa yi da ngeen koy fàtte mais bu leen koy fàtte dee leen like vidéo yi gars yi gis ngeen li nga xam ne démb xew na fële ca assemblée nationale léegi nag dafa am ci loo xam ne moom moo ci mat taxaw seetlu quoi parce que dama gis yenn ay patriotes yoo xam ne dañoo baax xam nga patriotes yi seen xol yi dafa rafet le fait que waa waa waa waa wàllu ak ak yenn député waa ji nu mu tuddee Khalifa Sall yi taxaw ne du ñu voté projet de loi bi rek gars yi ne ñooñu dañoo défendre seen réew quoi te man giseewuma ko noonu gars yi man la ma gis mooy ñooñu seeni intérêt wu bopp la ñuy défendre parce que ñooñu mosu ñoo gëm réew mi seen bopp lañ mas a gëm parce que ba ñu leen waxee ne leen dañuy dugal projet de loi boo xam ne dafay seetal Karim Wade ak Khalifa Sall leer na la ne lépp li nga xam ne jiiñ nañ ko Khalifa Sall ak Karim ñeneen ñu ko def ñeneen ñu ko def bu ñu dugalee projet de loi boobu ñooñu sax dañuy seetaale mu doon loo xam ne ñoom xam nañ ko ñu accepter loolu léegi nag lii ñuul ci soow mi mooy projet de loi bi nga xam ne moom la ci Macky sàll yokk te bokk ci woon nee nañ ñoom waxantewuñu woon ak moom loolu mooy projet de loi bi koy may mu mën a tas assemblée nationale bi heure bu ko neexee léegi nag ñi jàpp ne ñii dañoo rejeté projet de loi bi ndax askan bi déedéet ñii dañ ko rejeté ndax seeni propre intérêt ñoom te dinaa leen wax naka lañ ko rejeté ndax seeni propre intérêt bi ci njëkk mooy ñoom xam nañ ne li leen dugal assemblée nationale ginnaaw yàlla suñu borom président Ousmane Sonko la te ñoom ñëpp bi ñu duggee assemblée nationale ba pare dañoo won ginnaaw président Ousmane Sonko commencé def ko seen adversaire def ko sax seen noon di toog ci plateau télévision yi ak yenn site internet yi di ko yekk lu mel ni xeme te lu jiitu loolu moom moo doon ànd ak ñoom di campagne ñoom di dugg ak ñoom ci àll bi ba def leen ay député ñenn ñi mu def leen ay maire ñu xëy suba wor ko di wax ne ñoom ci seen njàmbaaru bopp ak seen liggéeyu bopp ci lañ doonee ay maire ak ay député yaakaar naa ne loolu ñoom ñëpp gis nga leen façon discours boobu la ñu amee ba ci moom Cheikh Bara Dolly mii nga xam ne bokk na ci ñi ñu gën a soof sax ndax façon waxin bi muy waxee buy jëmale ci Ousmane Sonko nga xam ne kii dafa ko en daf ko soxore léegi bu ñu ñëwee ba tey ñu dugal projet de loi bi ñoom li ci li li leen ci gën a déranger li nga xam ne mooy tax ñu gën koo rejeter mooy. ñoom leer na leen ne politiquement bis bu ñu ñàkkoon seeni mandat député yii askan bi pare nañ ci ñoom imaginel tey ñoom ñu voté projet de loi bi président Ousmane Macky Sall xëy suba ne dafay tas assemblée bi ñoom dañuy waye di bu booba ndaxte ñoom mënatuñoo dem ci askan bi wax leen lu ñu dégg askan bi pare nañ ci ñoom ñoom mënatuñoo doon ay maire fii wala ñu doon fi ay député ndaxte askan bi pare nañ ci ñoom wan nañu seen vrai visage léegi nag xam nañ ne cinq ans yi nga xam ne am nañ ko ci assemblée bi sànni tàcc la ci ñoom dañ cee bëgg a profité defar ci seen ginnaaw balaa muy jeex léegi imagineel ñoom ñu yor paaka bi leen war a rendi ba pare di nangu di ko jox mag Sall te xam nañ ne mag Macky bu ko jotee mën na leen a rendi à tout moment bu ñu voté projet de loi bi Macky Sall xëy suba tas assemblée bi ñoom fan lañ jëm ñoom bu boobaa ñu nekkati ay député seeni privilège dañ koy perte seen salaire yi ñu amee assemblée nationale dañ koy perte lépp lu ñu amoon dañ koy ñàkk ci ensemble bi léegi imaginer ñoom xalaat nañ xëy suba demaat ci askan bi naan leen joxaat leen ma seen kàddu ñoom askan bi di leen déglu ba lañ di leen jox seen kàddu ñoom xalaatuñ loolu léegi nag ñoom bañ a perte seeni mandat mandat de député dina tax ñu bloqué li mais lii lépp président Ousmane Sonko waxoon na leen ko président Ousmane Sonko ba ngeen di dem di dialogue nee woon na leen dialogue bi lépp lii ak lii moo ko waral léegi nag lam leen doon bañal moo mujjee walbatu ko këpp waat seen kaw gis ngeen projet boobu bis boo leen ko voté dina metti si ñun askan bi trop parce que ku nekk xam ne deal bi nekk ci ginnaaw projet bi mooy li mu bëgg dul lenn lu dul bis bu fi tegee Ousmane ñàppam kooku dawal tuuti démissionné fekk boobu moom moo nekkoon euh, président assemblée nationale mu mën a ñëwaat jël réew mi dawal tuuti organiser ay élections yoo xam bu ko neexee da ciy bokk parce que loolu gis nañ ko Russie amoon na Russie Poutine defoon na ko léegi nag moom du créer dara du créer moom day xool lu nit def rek mu ne xaaral ma essayer def ko ba xam dina marché wala du marché léegi nag yéen yéenay xool yéenay xool ndax da ngeen di voté projet de loi bi wala doo leen ko voté l'essentiel projet de loi bi booleen leen ko voté moom mooy seen seen carrière politique jeex na c'est fini li leen desee ku néew ay ay ay ay tala plateau télévision di leen invité wala yéen seen YouTube yi sax di taf seen photo wala vidéo di wax ci yéen wala yenn site internet yi di wax ci yéen mooy li ngeen desee ci seen mandat wu député bis bu seen mandat jeexee dinañ leen fàtte comme niñ fàttee ñooñu noonu ay ñoom Idrissa joob ak ñoom Sall bi gis ngeen dañ leen a fàtte woon bëgg ñu fàttaliku leen moo taxaat ñu dal ci kaw ginnaaw ci kaw Ousmane ko pour bëgg ñu wax si ñoom yéen ñii nii nag seen cinq yi bay bu ngeen siramtal ko xam ngeen temps booy yor dara bañ mu jeex nga ko siramtal bay boo ngeen siramtal sen 5 ans yi ngeen fi wara am bis bo len xullee ba ba Macky Sall ngeen jox ko paaka bi dalen di rend yeen ñep amul sentiment ci kenn lim bëgg la xam te lim bëgg yeen xam ngeen ko yeen nak yene xol da ngeen ni voter affaire bi wala do len ko voter sen affaire la mais patriote yi na ngeen xam ne ñii rejeté wuñ projet bi ndax askanu Sénégal dañ ko rejeter ndax seen ay propre intérêt ñom ndax ñom fepp fu ñuy sëgg day am dara fu amul dara duñ fa sëgg laataa ngeen ni dem deal ba Macky Sall wax Ousmane Sonko wax na leen lépp ay deal la ngeen lànk ne dangeen di dem dem ngeen fa ñëw ngeen ngeen tënk ak waa ji li ngeen di wax ngeen ñëw ba assemblée nationale mu indi fa boole ci lu ci bokkul woon loo xam ne d'accord leen ko woon ci seeni deal kon xam ngeen ne kooku ci boppam la nekk boo leen fi jigéen ak di ngeen nangoo baay Ousmane Sonko tuuti xel bu leen waxatee ngeen nekk ay nit ngeen bàyyi di dëgërante ak moom bopp ndax du seen moroom seen kilifa la même boo leen ko magee ci at moo leen mag ci xel mag leen ci xam